jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy suivre ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di amaan mbégte jàkkaarloo waat ak seen seen leader bi di people 221 di nuyu suñu di nuyu suñu kilifa aada yi di ñaan réew mi Sénégal yàlla na suñu borom doolu jàmm ba tey ni ñu ko waxee rek ñu ngi ci safar gi ba tey ni ñu leen ko waxee ñu ci wàccaay màggal gi di ñaan yàlla suñu borom yàlla nañu yàlla yóbbu ci jàmm ñëw ci jàmm euh, vraiment di ñaaxaat tamit ñi nga xamante ne ñoo nekk ci tali bi daw ndànk dal ndànk dem ci jàmm ñëw ci jàmm euh, ndigal li nga xamante ne moom la sëriñ bi joxee ci képp kuy kenn du mu di boucher waaye nag boucher ku ne xam na ni période bi période am la période màggal ku ne gis sa boucher ni muy ni muy ni muy dundee màggal gi ni muy dundee safar gi fas yéene Cheikh nga waxtaan boucher euh, ñu ngi lay bàyyi nga nuyoog ñu lay suivre. waaw salaamaaleykum euh, people 221 salaamaaleykum adduna salaamaaleykum Sénégal maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di nuyu monde entier di nuyu. sëriñ Mountakha Al Bachir mhm. di ko ñaanal gudd fan ak wér mu yàgg fi lool Mbàkke di ñaanal sëñ Bass bu Khadre bu baax di ñaanal soxna Baali Mountakha di ñaanal kilifa diine yi nekk ci réew mi yëpp di leen ñaanal jàmm di nuyu sama yaay sama papa di nuyu samay mbokk di ñuy waa Amérique bi ma jógee gannaaw moo njaay ku ci mel ni Mado maa ngi koy nuyu maa ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax di nuyu àdduna daal. Uh-huh. Boucher ñu gis uh, Boucher macha allah nekk quelqu'un boo xam ne ku àdduna xam la Boucher tey bëri na bërëb yoo xamante ne fu ko neex mën na fa defee émission mais pourquoi nga choisir ni man Massalikul Jinaan bi laa defee sama émission tey. waaw dama nekkoon nag côté bii dama nekkoon côté bi doon raxas sama oto ngeen ñëw gis ma woo ma def loo ma émission ma ne leen jege na ma ak Masalik nañ dem toog foofu jàkkaarloog jumaa ji ndax xéwal la goo xam ne fi mu ne nii dina mel ni maa ngi jumaay Touba fi mu ne nii maa ngi mel ni maa ngi Touba. Mhm. moo tax fi mu ne nii dafa mel ni maa ngi digg Touba. ndax Masaalikul Jinaan laa ne moo tax ma sentir ko ñëw fii toog war fay defee émission bi di leen gërëm bu baax nag ku ne gis sa màggal gi nit ñi dañ ci demee ak yéene ku ne di jël ay teraanga euh, di ko yóbbu ma ñëw ci ki nga xamante ne muy sa grand euh, di sa sa xarit di Aziz Ndiaye euh, nga xam ne chaque année da koy def daaw mu def ko ñëpp ni Aziz est-ce que dina ko defaat ren ren mu ñëw def lu gën a pur loolu yéene gi muy def ci màggal gi ak ak ak ak pas-pas gi mu jàmm aussi waaw Aziz Ndiaye dañu koy ñaanal jàmm di ko ñaanal tawféex di ko ñaanal famille Aale yëpp di ko ñaanal seen papa yàlla yërëm ko yàlla xare ko aljanay si ndax li muy def nii yëpp ci baayam la ko gisee di ko ñaanal gudd fan di ko ñaanal Baye Ndiaye di ko ñaanal Ndiak di ko ñaanal euh, Masata ko ñaanal xale yëpp di ko ñaanal ñëpp daal ndax famille bu baax lañu fami boo xam ne lañu waaw ñëpp la ñu yemale te Aziz fierté tiijaan yàlla fierté Mouride la tamit Aziz Aziz yu ñëpp la di leen ñaanal gudd fan ak taw wér tey taysiir di ñaanal ñëpp jàmm bu déwénee yàlla na yokk ci barkeb Cheikhul Khadim ndax gis ngeen sëñ Mountakha Bassirou gërëm na ko loolu Aziz dafa aalu ba sëñ Mountakha gërëm ko aussi sëñ Mountakha gërëm na ko te bu la sëñ Mountakha gërëmee moom jëwriñ maa lay saare lu neex defal waaw kontaan nañ ci bu baax kontaan nañ ci loolu bu baax a baax di ko ñaanal jàmm waaw Bousse ay màggal gi ñëpp yaakaaroon ni Bousse ren du màggal si parce que Bousse yaakaar naa tey tey tey tey tey la wàcc ci aéroport bi ñëpp yaakaaroon ni Bousse du màggal si waaw tey laa ñëw tey laa ñëw barki Cheikhul Khadim tey laa ñëw gis ngeen dama xëppoo rek simmi yére bi ma soloon mooy yére bu weex bi def naa ci benn émission sax màggal gi du ma ko yemaleeg dara man bii bi ma waroon ñibbisi waa tey le 27 octobre la bii avion bii ma yéeg nii delta bi dafa fees dell benn place moo fa desoon muy wan si wan si mooy business class bi nekk ci kanam deux million huit cent lañ koy jaayee aw ma pexe te man ku ne xam na ne business class duma ko jënd ak sama xaalis ndax am na fu mu xa waaye dama ko jënd tey deux millions huit cent ngir màggal gi barke Cheikhul Khadim Mouhamed moo ma jaay billet deux millions huit cent laa jëndee billet billet baa ngi nii business class laa jënd ñëw màggal si te ndax fi mu nekk nii sept jours rek laa fiy def newaat pëy ñibbi. Amérique incha allahu rabbi ndax la ma waroon def Amérique yembagul te pareegu ma ci moo tax te màggal gi rek ma jaral li moo tax ma bàyyi lépp ñëw màggal si mm-hmm. waaw. day dayoo màggal gi. waaw dayo màggal gi guy gi boo koy laaj moom xanaa dañ laa war a duma dayo màggal gi moom àdduna bépp xam nañ ko waaw dayo màggal gi moom réew mépp xam nañ ko ndax sëñ tubaa da kenn sëñ tubaa da lépp sëñ tubaa amul moroom sëriñ tubaa du maas sëriñ tubaa du màppandoor sëriñ tubaa du moroom sëñ tubaa kenn la moo tax dayo màggal gi trois cent soixante-cinq jours mu tànn ci benn fan neewul kaa leen sant la ma kenn daf ne kaa leen sant la ma yàlla sunu borom benn bis boobu la fonk ci àddunaam kon ku ko ko lewul doo gor moo tax lépp lu ñu jàppoon ak lu ñu diglanteeg moom ñun rus na noo màggalee àll xam nga lu tax dañoo diglanteeg sëriñ bi te suñu doori ne ko mbàkk bàllay sa lii ak lii boo nu ko defalee màggal duñu ko rate te looloo loolu defal nañu ko moo tax bu ñu toogee wute màggal suñu xel du dal moo tax dañuy ñëw màggal si kon dayoo màggal gi egg na foofu lu waay digg ak sëriñ Tuubaa def ko. yaa ngi koy wax am na loo xam ne da nga koo dogg woon ci sëriñ bi sëriñ bi defal la ko mën nga ñu résumer lu ndaw rek sa digganteeg sëriñ bi ak li la sëriñ bi defal ak ak ak ak jaar-jaar bi. waaw damaa nekk ndaw nekk téeméeri nit ak juróom-ñaar fukk fii ci Ndakaaru ku bëgg li ma bëgg ku ci ne am doole ji ma am ku ci góor ma nekk góor ku di defante ku di jaayante li may jaayante sëriñ bi seppi ma ci ñooñu dimbali ma rawale ma. bi ma rawalee ma demaat foofee fekkaat fa téeméeri nit ak juróom-ñaar fukk ñu mel ni ñii ma fi baax. di jaayanteeg man di wut lu may wut di defanteeg man lu ma laal ñoom it loolu la ñuy laal sëriñ bi seppiwaat ma ci ñooñu may ma lu ñu amul may am lu kenn amul mooy lan di wër monde entier fu ne ma dem fa lu ma laal mu sotti kenn dàqumaa liggéey ci àdduna dama doon rayante xotti naa carton liggéey naa ci diswaasa di raxas bool liggéey naa def naa lu ne dem naa fu ne liggéey naa restaurant gàddu naa palaat liggéey naa ci kitchen waañ yaa ngi dégg lu ne def naa ko amerik waaye sëriñ bi bi ma bëggee dimbali dëgg daf maa indiwaat ndakaaru teg ma ndakaaru jox ma loo xam ne tey popularité la boo xam ne nit ñi dañu ma ciy suivre ñu ma ciy fay ay millions guy yi quatre-vingt-quinze barke Cheikhul Khadim xam nga lu ma sëñ Tuubaa defal. Mm. NMA Sanders sa at bi bu ñu ma joxee budget at. barke Serigne Mbamba Mbacke te la laay waxee NMA Sanders si compagnie bu mag la mën naa cee dund at du jeex at bi. laaliyaa meewu bu ñu ma joxee budget Touba boo fa demee samay photo nga fay gis NMA Sanders. Touba barke Serigne Mbamba sak màggal NMA Sanders maa leen di liggéeyal tabaski korite gàmmu ak màggal lépp Serigne be ku santul nit doo sant yàlla sunu borom. Mhm. laaliyaa bu ñu ma joxee budget at nammatuma dara. yaa ngi may dégg. bu baax bu ñu ma joxee budget at namatuma dara. mais mais ñu ma toog yàlla boole maag Serigne tubaa Serigne Touba boole maak ay nit ñu baax ñoo xam ni ku ma ci gis boole maag loo ñoo loo xam ni su ma ci téye dinaa ci mën a jëriñu. di dem fu ne ku jug ma jug ku wax ma wax lu waay dugg ma dugg ci te kenn mësuma dégg ci lu ñaaw kenn mësuma wax lu ñaaw Serigne bi aar ma man na ci showbiz bi nekk ci mbiri àdduna yi sëriñ bi aar ma ci ba nga xam ni kenn yabu ma ci te kenn mënu ma ci ah sëriñ bi suma ko santul fan laa jëm waay. Mhm. Euh, lu tax lu tax influenceurs yi bari mais chaque instant euh, euh, buuse bu màggal Tuubaa jotee buuse rek ngay dégg. waaw loolu lu lu la ñun sëriñ bi duñu ay féeg ci moom. sëriñ bi dañu ko bëgg te yàlla tax gëm ko te yàlla tax sopp ko te yàlla tax naw ko te yàlla tax sëriñ bi dimbali ñu ñu ko koy delloowaat sëriñ Béthio sëriñ sëriñ xoolal ma Mame Bambi Thiam maa ngi koy da maa koy maa ngi koy siyaare cofeel la rek sëriñ Béthio Mame Bambi maa ngi koy ñaanal yàlla xaare ko aljanay firdawsi te yokk taas ñu ci barkeem ku baax la woon moo tax maa ngi koy tudd te tayuma ko ndax cofeel la ndax màggal ba may gën a nekk xale bu bu tolloon fii mbana yeeg mburu yeeg yooyu mu doon yóbbu Serigne Saliou dama ci doon jàpp. moo tax xoola ngi koy tudd te waaw waxtaanee wuñ ko sax. Mhm. waaye loolu ak yëg-yëg la waaye Serigne Touba Xaadim Rasul soo gisee mu seppi ma ci influenceur yëpp teg ma ci kaw bu màggal jotee ñëpp di ma suivre produit yëpp daw wut si ma xam nga lan la. Mhm. ak dëggu ak gëm te sëriñ bi lépp lu ma defal dama ciy dem ba mu jeex di ko ci gërëm ndax dama koy sant di ko santati. barke Serigne Mbamba Serigne Touba ku muus ku ne da nga ciy business xam nga tax nga ciy business. waaw bi ñemewul bor. ñemewul Serigne Touba gën a ragal bor ci àdduna. <laughs> ay bor yi gaa yor nii yow nga yoral ko téeméeri te juróom ñaar fuuta mi yoral ko ma yoral ko fu ku ne ko nit. Mhm. Serigne Touba ñemewul bor. moo tax lu ko waay def mu fay la ko Serigne Touba li ma koy defal nii yëpp daf ma koy fay far force te mi ngi koy fay maa ngi koy gis. Bousse ñu gis ni ñu gis ni Amérique. man sama secret loolu la. rek. wax na nag su ma sekkere loolu kese la di business ci sëriñ bi mu may fay li mu may fay ma koy lekk muy rees te te fayub sëriñ bi day barkeel barke sëriñ Bamba Xaadimu Rasuul fayub sëriñ bi sëriñ Béthio sëriñ oh. ndeysaan. sëriñ Tuubaa fayal la boppam sëriñ Tuubaa fayal la boppam day barkel barke sëriñ Bamba du xaalis boo yor mu naan di naaw dañ ci xam lañ ciy def guy gi. barki Serigne Touba Xaadimu Rasul yenn saa yi ma am loo xam ne damay yàq dama naan lii xanaa dama koo sàcc te yàlla xam na ni dama koo liggéey ci sama téléphone bii waaye damay yaakaar ni lii gaaw gi mu gaaw ni fan laa ko jëlee. mais bu màggal gi bu màggal gi bu màggal gi doorsee buuse boo ko fekkee Touba cëfër cëfër gi ambiance bi. waaw jaager jaager ge xaaral xaaral ge laager laager waaw bu ma duggee damay rakkaaju. rakkaaju ma duggee Touba fi mu ne nii rakkaaju la nit. dama bis sëñ Tuubaa bi dama ko bëgg. ndeysaan dama bëgg bis sëñ Tuubaa bi màggal gi dama ko bëgg. guy ji dama bëgg màggal gi. màggal mm-hmm. dafa neex. màggal c'est extraordinaire. màggal mm-hmm. leneen la. berne yi. sañse yi. parfum yu neex yi. jàng alquran yi xasida yi sëñ Tuubaa ji sëriñ si ñu lay ñaanal muy am. nga gëm ko. oh màggal a neex waay. <laughs> kenn du sëriñ Tuubaa kenn du Serigne Touba. Mhm. dugg Touba rek jëlatul maxwaa daj ci Serigne Saliou Thioune. Mhm. mu Cheikh Béthio Seydina Thioune. raam tuuti xool à droite fekk fa mu baax mi muy berndel jàmm ñi. Mhm. nga dugg tuuti gis soxna Baali Muntaxa à droite. avancé waat tuuti gën gis kër Sëñ Muntaxa Albasir tourné tuuti gis Sëñ Abdou Khadir ci wet ga. tourné waat à gauche gis soxna moom yi datu Kébé biir Touba. soxna moom it di berdeel jaam ñi soxna moom it di dimbali jaam ñi soxna moom it di jàppale jaam ñi soxna moom it di teral nit ñi soxna moom it di sagal doomu aadama yi soxna moom it di yëg màggal gi di ko yëkkati kenn mënu ko ci màggal. ngay gis ñooñi sa xol day set ñun sëriñ bisum sëriñ Tuubaa bisam bii ku ñu ko fonk la ñu def la ci kaw. Mm-hmm. teg la ci kaw ku ñu ko suufalee ñu suul la. Mm-hmm. am na solo damay génn foofu ñëw ci showbiz bi ah. Bousse euh, euh, euh, damay njëkkee ci làmb ji am na ci yoo xamante ne nii fekk la fi diggante <laughs> Bousse daa mel li may wax ñoru ko Balla Gaye ak ak fii sa Balla coow li nga xam ne jotoon na fi am Bousse fekk la fi ak coow aw Baba Thiam bi audio yeeg sala sala saw bi Bousse coow yooyu noonu nga xam ne amoon na sa ginnaaw naka nga ko jàngatee. sama yoon newul ci coow yooyu yëgu ma sax coow am na fi. Ah, guy gi 18 safar bu duggee. le premier ba le 18 Serigne tubaa rek laay waxtaanee ku ma wax ci Serigne tubaa ma teral la ku ma wax ci Serigne Touba ma fonk la ku ma wax ci Serigne tubaa ma naw la bëgg la ku wax Serigne ci Serigne Touba ma tontu la loo ma wax leneen lu dul Serigne tubaa du ma la lijjanti ay showbiz ak ay audio ak sama yoon néewul ci loolu Serigne Touba laa lijjanti bu ma laaj ci dara. non du ñàkk nga ñëw ci Banaya mi nga xam ne daa jógee sa kër dem kër Faramareen gi waxuma ci yooyu lijjantiwuma seen yooyu ñu ne. man Serigne tubaab moo ma yitteel jamono jii ndeem ñoom nag ndeem ñoom ñooñee le 18 safar di dugg ñuy def seen yooyee di ko ruumandaat di coow ak di def ay mbir ci di xanaa loo coow coow ak loo musique musique ak loo tëgg tëgg soirée bu 18 safar duggee nga mën a arrêté lépp. Mm-hmm. war mal bisu Serigne bi mais gars yi léegi le premier safar ba le 18 dañuy tëgg soirée. Mm-hmm. barki Cheikhul Khadim ma nekk Amérique sama xol di jeex. le premier safar ba le 18 gaa yaa ngi tëgg. yaa ngi ci point bu am solo. pour lan ñuy tëgg. Mhm. pour lan ñuy tëgg bisu Serigne Touba bi Serigne Touba fonk ko nañ bu bu bis bu safar nañ ba soirée yi le premier ba le bu kenn tëgg soirée loo xam ne at bi benn yoon la nañ ko muñ ñoom ngi tëgg 11 mois 45 jours xanaa 18 jours di nga ko mën a may Serigne bi. Mhm. waaye dañuy tëgg. Pape Diouf rek a tëggul ñëpp ngi tëgg. sarti sarti màggal gi ren lan nga ci wax. sarti màggal gi li ci sëriñ bi wax mooy dëgg sëñ tubaa moo joxe ndigal sëñ Touba moo joxe ndigal moo ne ku def lii baaxu ci lii ku ko def lii xef ak yii nii. Hmm. kon ku ko def nañ la duma. ànd naa ci man damay bokk ci ñuy duma waate ren. yow billaahi wallaahi wa taalaahi ku ma gis mu teg xef wala garafaas billaahi wallaahi tallaahi dinaa la ñuus. bu se ngay raxituma waat ndigal li dama ciy fayeeku sëriñ bi bu joxee ndigal nga jëfe ko dalay fay. damay fayeeku nee naa la business la job mm-hmm. sëriñ bi ñemewul bor moo joxe ndigal sëñ waa joxe ndigal muy sëñ taxa mm-hmm. moo ne léeg-léeg li man ku ma gis mu sol greffage tey jii mm-hmm. wala mu def xef billaahi journaliste yi xaar leen ko di ngeen dégg ñu ne la buusa du mën a nit Tuubaa ba mu wacc sama loxo yi gis ngeen ni mu diisee ku ma ci gis mu def xef wala mu teg greffage wala mu teg ay lanti wala mu def ay wee billaahi ma ñuus la <laughs> yaa ngi wax léegi xam naa fa laay jeexale ah yaa wax sànq ni Serigne Touba mbiram ay business la ñu bari ah, di la xalaat naan buuse maggal gi bu demee dóor la fa nekkee buuse du dem ci du ko gis mu dem jumaay Touba doo gis mu dem daaree Kaamil buuse daal ah, fu nooy rek ak ci nit ñu baax ñi rek lay dem lan ngay wax ñooñu. loolu kenn waxu la ko daaray Kaamil ak jumaay Touba kenn waxu la ko man jumaay Touba falaay ne buñ ne gannaaw suba la bis baak jumaay Touba kër soxna moomu Kébé fa la ne de. Mm-hmm. kër sëñ Bass Abdou Khadre fa la ne di mhm. jumaay Touba fa ne man ma image yi gën a rafet ci jumaay Touba yi ngeen di gis ci TikTok bi man maa ko filmé woon mhm. jumaay tuubaa mooy mooy priorité màggal gi mhm. waaye bu sa ay kilifa yeeg yooyu kilifa yi samay kilifa lañ samay xarit lañu màggal rek lañu am ku ci mel ni Lat Diop daa fonk màggal daa bëgg màggal di jël ay milliards di ko def ci màggal tabax fa kër gu mel ni sato def ko ci màggal Touba def ko Touba bu ko neexoon def ko Ndakaaru Mermoz wa Mamel Wakaam mën na ko Serigne Touba koy dimbali waaye daa jël jumaa ji daa jël kër gu mel noonu def ko Touba di fa dalal jaam ni kon buy berndeel nit ñeeg di fonk màggal dama koy ndokkale ci. Mhm. soxna Momi Kébé même chose la mu tabax Touba bu ko naxoon tabax ko Mermoz. Mhm. def ko Touba la ko yóbbu ñëpp di ko dalal. Mhm. siisul kenn di berndeel nit ñi soxna Baali Muntaxa noonu ñooñu Serigne Touba ma boole ak ñoom Serigne Touba moo ma boole nit ñu baax ñi. boo ko gëmee dalay booleeg nit ñu baax nii boole laak ay nit ñu am valeur boole laak ay nit ñu ragalaat gàcce foofu laa toll suñ Tuubaa ba taral. am na message ngay lancé ñi nga xam ne dañu dem ci yoonu yoonu Tuubaa. chauffeur yi yeboo leen ay xar ak ay bëy ak ay ginaar daw leen ndànk boo leen waree nelaw nelaw yéen laay waxal chauffeur yi boo leen waree nelaw nelaw boo leen waree dem dem bu leen groupement autoroute à péage Ila Touba yomb na neex na dal leen ndànk daw ndànk. ku ci am oto bu pneu yi di rocceeku nga taxaw seere ko lan mooy seen problème ren war nañoo màggal ba ñëw zéro accident ndax fi ñu jëm yàlla rek a fa ne ngir yàlla xoolaat leen seen bopp chauffeur yi def leen ndànk dal ndànk yéen xanaa amoo leen ay famille xalaa amoo leen ay njaboot dal leen ndànk. xale di nuyu ñëpp xale yóbbu ay ay cinq valises dégg naa am na ñoo xam ne ay six. kenn yóbbul sa ku mu neex yóbbul vingt valises màggal xamalal la bernde. sañse lu rafet xeeñ lu neex wanewu ndax sant yàlla nag dangay ngay wanewu bañ ne kii puukare la santal waaw santal ba mu neex takkal say or sant bernde bëggee waaye teewul nag xasida yi tubaay yi moom na mat sëkk alquran gi na jolli ndax def nañu sant la ko yàlla radi raditu geeg midaadi jeeg ëhbatu beeg. fatu yi jës bu beeg. tuxfatu beeg rabbi beeg ah waaw waaw man jeeg na ñëpp jolli waaw alquran gi nañ ko jàng isa jaa yi ah alam tara karfa alam tara kayfa yi wala asri ah, yi ah xul walaawu yi wala ausubri bi naas yi ah ah yi ina ansalnaahu yi yaasin yeeg. Bakara Bakara yi. am naas yi. Amar Saloone waaw Amayata Saloona Amina Bay yooyu waaw ah waaw. sat Serigne waa rek. monsieur kontaan jolli daal moo de la fee ci bi. waaw maa ngi gërëm people Dakar 21 221 di leen ñaanal yàlla def seen sit bi lu lu kawe njot. waaw lu rëy. gis naa ne yéen a ci liggéey yéen ren damay ànd ak yéen. ñun waaw yéen laay liggéeyal. ñun waaw ren. damay ànd ak yéen ngeen wane màggal gi ngeen liggéey dëgg ci màggal gi. Mm. maanaam liggéey nag mooy wane lu am jom. dëgg la wane lu am jom. maa gërëm ñëpp di gërëm euh, euh, àdduna. di gërëm sama yaay di gërëm sama baay di gërëm Ndiak Aala Ndiaye njaak mu rakko Aziz Aala Ndiaye magu baay Ndiaye maa ngi koy gërëm njaak mu Masata Aziz Ndiaye ñoom ñëpp maa leen di gërëm Birane Ndour Lat Diop Pape Diouf Bébé Baas Matar Diop suba teel Badara Gadiaga aw ma fayam. Badara Gajaga essence bu bari la ma jox barke Cheikhul Khadim Badara Gajaga yàlla na yàlla guddal sa fan Badara Gajaga yàlla na la yàlla fay Badara Gajaga màggal gi rek ko ñor Badara Gajaga balaa ma lekk ci moom xaalis dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg safar gi dugg. bu safar gi duggee le premier ba le 18 damay mos ci moom te lu dëgër laay mos tey lim ma jox ci ay bon essence jox ma ko ci xaalis barke Serigne mbam yàlla na yàlla guddal sa fan Badara yàlla na la yàlla may wér lépp loo bëgg yàlla na la ko yàlla defal Badara Gajaga mbokkum yaayu Matar Diop mi mi nga xam ni yéene ma la def bëgg ma lépp lu baax lu ma am Sénégal ginnaaw yàlla ak bi Serigne Touba ci loxoom la ko jaarale ndax Badara mataar moo may link link yu baax yi may coppatu coppatu yu baax yi def sama poche ci poche yu baax yi Serigne Touba rek kay dëkk